alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Serigne Aline Badara Ndiaye ci waxtaan bu am solo bi kon mbokk yi loolu moo nekkoon tey suñu ñetteelu jotaay ci xasida gi nga xam ne mooy haajat xasaayidi xulubal xamala mu mel ni sëñ bi waxtaan bi euh, gàtt na waaye lambo na ay ngëneel yu rëy rëy yoo xam ne dañ ciy gën a xamaate ne xasiida gi yi nga xam ne mooy xajut ak xasiida ak xaajat daal hmm. dafa mel ni sëñ bi da koo bind hmm. di ci feeñal tolluwaayu mbindam hmm. waaye di ci feeñal may yi nga xamante ne maanaam suñu borom subhaana wa taala may na ko ko mu taxaw taxawaay boo xamante ne taxawaay bu am solo la moom moom xasiida gi nga xam ne mooy xaajat xasaayid yi sëñ Ahmed Badara Ndiaye kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax ñaan yàlla yokk xam-xam bi te dëgëral ko amiin te mottil ko yéeneem ci liggéeyal Serigne Touba di jaajëfal bu baax mbokk yi nga xamante ne ñoo doon topp euh, jotaay bi waaye di sàkku ci ñoom tam ñu ñaanal ko bu baax mu mel ni sëñ Abdou Sakor jotaay bi am na solo lool. Euh, jombul am na ay jàngat yoo xamante ne dañ ko ci mën a indi ci lu gàtt incha allah. waaw waaw muy hmm. jotaay bu am solo di it euh, wax ji kiimaane joo xam ne bile. Hmm. sëriñ bi waxati na ko ci xasaayid yi. Hmm. mooy xasiday xëjat daal dafa mel ni. taxu ko gudd lool waaye it. ni muy gàtt gàtt gàtt noonu la làmb ay njëriñ. noonu làmb ay njëriñ. waaw mbindum sëriñ bi nag moo mel noonu. Mm-hmm. ndax euh, mbind la moo xam ne. Mm-hmm. Euh, dañuy faral di wax ne. Mm-hmm. ba mu ñëwagut gisuñu woon lu mel ni moom. lu lu ba ba xasaay it lu mel ni moom. te bi xasaay it ñëwee it. gisaatugun lu ko lu ko jege lu ni mel. nga xam ne euh, lim naan lim doon wax yonent bi naan ko. yaa gën la la njëkk mhm. yaa gën la yaa gën li ci digg bi yaa gën lay ñëw ëllëg loolu mooy la ci xasi loolu moo mhm. moom mooy ñëw ci xasida yi mhm. te it wax na ne ci xasa at yooyu man Sëñ Tuubaa ci laa laqe xeeti xam-xam yi laqe naa ci ay xeeti xam-xam yoo xam ne man képp maa ko la ko suñu borom xamal am naa ci xeeti maqaama yoo xam ne it man képp maa ko am te it dem naa sax ba am ci lu kawe sama njort ci xasida yi kon قصد جيتي يا لبوك وخنا حسن العلوم والمقامات الكرام بالخط حائزا به فوق المرام كلا لقنا تلو خنا مو جن كوينا سما جرت على ما تجرتن كوينا كو لون اللي كوار الموي ما ندم كو جلود في أكتبنا خلال من الله حبا من خلمه في حروفي لم أمين كن لولو خسائر دول دول خسائر مومل نون مجدنا صح واخ لنا لا حروف زن زامي دال خير بركة خير بركة واو واو واو لولا نك جالي بلوك أخون واي نك تقوي مم لو لو واي نك لولو خسائر يب دو دو جيف نسرين واو واه وين بيت بيت واو داي داي داي ما نيوب بالهم بالهم بيت جدس حروف النساء من غير بركات وسكنات تشكر معا والحركات كنا الخسائر سمودو Euh, amul amul amul amul commentaire. xasida mooy non commentaire. ci lépp lu baax. Mm-hmm. lépp lu baax rek. soo bëggee xéewal mi ngi ci biir. Mm-hmm. soo bëggee soo bëggee mucc mi ci biir. Mm-hmm. soo bëggee yëkkatiku mi ngi ci biir soo bëggee bayre mi ngi ci biir. lépp daal moom mi ngi ci biir kon daal. Euh, jàngal boobu lañ ci am. macha allah noonu nga ko waxee rek mm, dafa am lépp lu baax moom moom xasida xam te ne booy jàng euh, xasida ak tey siru asir da nga gis muy ñaan suñu borom naan ko wajaan xuruuf yi fawqa kulli amalin saluxa da nga def sama mbind muy kawee jëpp jëf ju baax kitaabati yi faaxat si yooxa tarbiya wa kulla xayr la ca teg bépp yigu bépp yiw mooy bépp jëf ju baax rek mbindum Sëñ Tuubaa daf koy kawee kon loolu nekk lu rëy rëy loo xamante ne nii képp koo xamante ne taxaw nga ak moom di sellale mm. li nga cay wut suñu borom laa mën na la koo defal ndax mbindum suñu Tuubaa lépp la suñu borom subhanahu wa taala nangu kulliyati xabilahal baaxi bila mm. durrit wa inu xayaati xabila kon soxna maam jaar gay tey si yow itam déglu nga waxtaan wi mm. mu am solo lool euh, loo ci mën a jàngatee ci ay simili yu gàtt incha allah waa jërëjëf jëwriñ dafa mel ni waxtaan bi gàttaay gi solo si da koo ëpp lool am na solo lool wax dëgg yàlla mhm. te xasida gi comme ni ko jëriñ waxee nekkul xasida gu gudd mhm. waaye dégg nañ li nga xam ne moom moo ci làmb lépp mhm. ndax dégg nañ ci ni sëriñ bi bind gi nga xam ni moom la doon bind xasida gi ci suñu borom muccal ca géej ga ak ca gaal ak ca duus yi defe ñu ngi ko doon dégg te loolu mucc ci yombul kon ñuy jànge ci loolu ni ab liggéey hmm. lépp lu waay bëgg hmm. ak lu manti doon hmm. faw nga jaare ko ci ab liggéey ndax defe naa sëriñ bi ni ko amee woon du lu yomb te lim ki dajoon tamit du lu yomb ñu déggaat tamit ci biir ba tey sant gi nga xam ne suñu borom sant na ko ko ci kanamu ñi nga xam ne ñoo di soldaaram bi defe naa bu ne nee soldaaram yi rek mbooloom la aju ci malaaka yi ak wet googu yëpp day dugg ci biir kon defe naa ni sant gi ko suñu borom sant tamit ci kanamu ñooñu kon sant gi suñu borom da koo biral mm. sante ko ko ci kanamu soldaaram yi mm. loolu tamit mi ngi feeñ ci xasida gi mm. ak tamit noon yi nga xam ne ñi ngi ko doon pexeel suñu borom mi nga xam ni mooy boroom kàttan mujjee ëlbati pexe yooyu këppaat ko si ñi nga xam ni ñoo di ci kaw noon yi kon defe naa ni xasida gi xasida bu am doole la mu ne suñu borom tamit jox na ko loo xam ne si kenn mënu koo kenn mënu koo peese nekkul ni nga ko mënta peese nag waaye dafa xëyul ci balance defe naa looy peese da nga koy mën a peese <laughs> ñu ngi dégg li nga xam ne noonu la ko mbokk mi doon firee ci xasida gi mm-hmm. mu nekk tamit lu am solo ñu dégg tamit mu wax ci ni darajat yi tartafion bi xayri makri mm-hmm. mu ne darajaam dafa yëkkatiku mm-hmm. waaye yëkkatiku gi mu yëkkatiku nag yëkkatikuwul ci ay pexe nekkul ni dafa jëm ay pexe ba darajaam yëkkatiku kon dafa liggéey ba li nga xam ne mooy dara darajaam yëkkatiku ci kanamu suñu borom. Mm. kon ñuy déggee ci loolu tamit ni. Mm. lépp lu waaye bëgg ca suñu borom du ay pexe moo la koy may. Mm. waaye ab liggéey bu mat sëkk moo la koy may. kon ñu taxaw ni foofu ba ci kanam. tubaarkàlla mu nekk lu am solo lool soxna maam Diarra mu mel ni loolu lu jafe la. jaam jaam boo xam ne suñu borom da ko sant ba jël cant googu di ko waxtaanee. ci mboolem malaayika yooyu. loolu lu jafe-jafe la la. te sëñ bi day mel ni wax na ko ci ay barab yu bëree bëree bëri am na fu nga xam ne chakarani inda jamii jundihi hmm. ramo ziyaarati mahan min indihi hmm. sakartani inda xiyaari jundika mus xasa mus eh, waxabtali kaw nii dawaa man am na fa wax ne shahida rabbi bi jihaadi wa zakar amri inda jundihi waxat shakar loolu lépp di ay taxawaay yu mag yoo xamante ne nii Euh, day wone ngëneelu xasida yi waaye di wone màggug Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul man su ko defee ñu fàttaliwaat mbokk yi tey laaj yi nga xam ni moom la ñu leen indil tey incha allah mhm. laaj bu njëkk bi mooy salli wa salli man na yaa karimu wa xud ilayya kullama arumu salli wa salli man na yaa karimu wa xud ilayya kullama arumu ñaareelu laaj bi mooy lii jut bi kaw ni makaati bi hudan abadan xajjan wa gazwan wa mahral fuur wal xiidu bayit bu ci nekk moom la ñuy laaj ci ban xasida la nekk ku ko xam di nga mën a jaar ci 88 628 19 25 incha allahu taala sëriñ Murtada Fall Rafa moo ko jaayanteel xasida ak jaalibatul maraaxib ak xasida ak jasbul xulub sëñ Abdou Sakor mm-hmm. laka kalkali laka jussati laka niyati laka xurbati wa mawatini wal munzil mm-hmm. mooy laaj bu njëkk bi laka kalkali laka jussati laka niyati laka xurbati wa mawatini wal ومن تلاها مخلصا لوجه من أنزلها فاز بأجر وأمن ومن تلاها مخلصا لوجه من anzalaha faaza bi ajrin wa aman sëñ Murtada Fall moo jaayante moom it yaari xasida tuxfatu wa sindiidi mhm, boo ko waaw boo xamee si yéen yaari yaari xasida la yaari bëri yooyu nekk rek da nga fi am yaari xasida yooyu incha allah macha allah bu mu jokkoo bi 88 628 19 25 incha allah incha allah 88 628 19 25 mooy nekk bu mu jokkoo bi hmm. vingt 88 628 19 25 sëñ bi mu nekk loo xamante ne xasida yi day mel ni sëriñ bi ko bind hmm. wax na ne ci jamono yi mu doon bind hmm. saa bu mosaan jublu ngir bind rek hmm. suñu borom subhaana wa taala ci boppam moo koy moo koy ilham euh, ilham boo xam ne euh, ilhama wax yin la wax comme ni ñi nga xamante ne noonu lay wax wax yu ab yonent mu ne lu mel noonu ilham bu mel noonu la la ko suñu borom subhaana wa taala di defal moo tax mu wax ni lahu fuaadi wa jusmaani wa alhamani ilhaama waxyin kafaani jumlatal mihani am na feneen fu mu wax ne itam alhamani alxabiru fi awraaxi azmaana xidmati yazal buraaxi mu ne suñ boroom subhaana taala moo koy il moo koy ilham ci xasida yi ci jamono yi nga xam ne moom la doon liggéeyal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam isa tawajjaha al fuaadu lil xidam alhamani rabbi wa sabatal xidam lahu midaadi wa axlaami wa alhamani gis nga foofu yëpp mu ngi fiy jëfandikoo baatub ilham mm-hmm. nga xam li muy bind nekk loon loo xam ne day jóge ci am xelam nii waaye suñu borom ci boppam moo koy ilham lahu midaadi wa wa axlaami wa alhamani waxustu minhu ataaya duunaha al xirafu xaala lisaanul xaali li alif bila taraddudin fala min ka xabila lisaanu xaal ci boppam day waxanteeg moom naan ko sa borom nee na nga bind te bul sikki sàkka lépp loo bind suñ borom subhanahu wa taala dana la ko nangul mu nekk loo xamante ni taxawaay yu yu yu màgg la buñ ci xoolee rek xam ne xasida yooyu moom la ñu suñ tubaa fàggul mu nekk xasida yi ñuy gis di ko jàng war naa tax ñu fonk leen bu baax a baax a baax surtout ni nga ko waxee léegi ci ginnaaw loo xam ne bi ko suñ tubaa di bind mi ngi koy toxalee ci lawul mahfuz ah. lawul mahfuz nag fii ci àdduna day mel ni ah. alquranul karim ak xasida yi sëñ Tuubaa yi lañ gis mbind moo xam ne fa la jóge ndax bal huwa quraanun majiidun fii lawhin mahfuuzun sëñ Tuubaa ne aktubu naaxilan min al lawhil xafiis maanaa ya ridwaanin aliyul rafiis kon mën na ne am na mbokk mu nekk ci ligne bi incha allah. ok mbokk ngi ci ligne bi mbokk salaamaaleykum salaamaaleykum. day mel ni mbokk moomu egsiwul waaw ñu ngi koy taaxelu ñu ngi koy taaxelu ci 88 628 19 25 88 628 19 25 incha allah fii ci rajo Touba Fall FM 105 point 5 studio Mourad kon ñu ànd ak Serigne Mountakha Gueye ci xasida ak Jaalibatul Maraaxib ba ci kanam incha allah 88 628 19 25 mooy bu mu jokkoo bi. bismillahi rahmaani rahim. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه واكتب له عليه الصلاه والسلام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 اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم sallallahu taala alayhi wa sallam jërëjëf sëriñ Mountakha Guèye ci xasida ak jaalibatul maraahib boobu wa farixu gis nga euh, mel na ni sax am na mbokk mu nekk ci ligne bi sëñ mbokk mi jël ko mbokk mi salaamaaleykum. Ah, bi naka la ak fooy woote ah góor gi Baye Mbaye lañ koy wax Touba Oumoul gi. Hmm, Baye Badiane. ah ñu ngi lay ziare bu baax. ñu ngi doon siyaar tey ñaanal mbokk julli tey ñaanal Baye Fall yi naka noonu. Hmm, amiin Badiane. maa ngi leen hmm, mel ni suñu baay Ibrahima Badiane. Hmm. doon woote foofee ca Touba Oumoul Khourane koy nuyu bu baax a baax di ko siyaar bu baax a baax sëñ Modou. 88 628 19 25 mooy buumu jokkoo bi 88 628 19 25 mooy buumu jokkoo bi boo waaw sama laaj bu njëkk mooy laka kalkali laka jussati laka niyati laka xurbati wa mawatini wal munzilu. mooy laaj bu njëkk bi. soxna jaare naa laaju ñaareel bi soxna jaare na si ñëw. wa man talaaha muxlisan li wajhi man anzalaha faaza bi ajrin wa aman. Cheikh moo jaayante ñaari xasida muy tuxfatu ak. goog si ndiir yi incha allah. Hmm, bu mu jokkoo bi. 88 628. 19 25 25 incha allah. mbokk yi yéen a ngi déglu seen émission ahlu xasida vingt heures moo jot ba tegal ñeent fukki simili ak ñetti ci Touba jannatul mahwa daan na wax ne wax fir li kullil kaatibin aw xaari in aw saamixin aw naasirin yaa baari nee na yow yàlla mi nga xam ne yaay jëggal bàkkaar na nga jéggal bàkkaar xasida yi ñii di ko bind waaye na nga jéggal yi ñii di ko jàng waaye na nga jéggal bàkkaar yi ñii di ko déglu ak xol bu set jërëjëf Serigne Khadim Lo Gaydel loolu yaakaar naa Maam Jaara nekk na loo xam ne day wone wane ngëneelu xasida mu mel ni kon sooy jàng di ci mën a jëriñu di ci jëli njëgal suñu borom ak bind ak dégloo yooyu yëpp daal kon day mel ni xasida yi moom lépp rek njëriñ la. waa xasida yi. wala mm-hmm. mm-hmm. ñu jël mbokk mu nekk ci ligne bi bisimilah jël mbokk mi. salaamaaleykum. allo. waa ñu ngi lay ziar bu baax. waaw soxna bi maa ngi lay ziare. maa ngi delloo ziar bu man la soxna Fatou Faye Oumou Khouraa. soxna Fatou. Faye. Fatou Faye Oumou ñu ngi lay ziar bu baax a baax. jaajëf yal yàlla yokk loolu ziar. amiin amiin. waaw man taalibu ah, eh, bi bu baax nag. ndeysaan. waaw di yàgg di ñaanal soxna yi nekk foofu Touba Fall yëpp maa ngi leen ñaanal ñu yàgg te wér gudd fan ak wér. amiin amiin amiin. waaw di ñaan seex borom digal rek lu ma ko ñaanal rek xeeb naa ko. amiin. ndeysaan ñu di ko jaajëfal bu baax te daa mel ni waa amul xuraa mm. ñoo ubbi bu mu jokkoo fi antenne bi. ndeysaan ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di nuyu mbooleem kuy déglu rajo Touba Fall FM foofee ca diwaanu tuuba amul xura ku ci mel ni soxna Aïda Diouf. ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax ak ku ci mel ni soxna Xadi euh, Kan ñëpp ñu ngi fefe ci diwaanu Touba mu xuraa Maam Jaara déglu nañ léegi waxi Sëñ Touba ju màgg jooju mu mel ni kon xasida moom nit ki donte mënta jàng xasida sax day mel ni mën naa jëriñu ci mbindum Sëñ Touba. waaw jëwriñ mbindum Sëriñ Touba nekkul ni ki mën a jàng rek moom mooy jariñu mm-hmm. defe naa ni njariñ li ki mën dana si jariñu waaye ki mën bind dina ci jariñu waaye yëmul foofu ba tey ki nga xam ne moom mënta jàng waaye bind waaye xool kese la man sax dina ci jariñu ba ki nga ni bindul xoolul waaye dafa jënd rek dafa wecc ko denc fu sell di ko parfum kooku tamit dina ci jariñu hmm. kon defe naa njariñ li moom lu yaatu la jërëjëf mu nekk loo xamante ne ni lu am solo la waaye lu mel ni xeetu sellal bi itam sëñ Abdou Sakor loolu itam yaakaar naa lu ci mat a bàyyi xel la ndax mhm. ndaxte eh, sellal bi da cee am solo ndax xasida moom jaamu yàlla la mhm. te suñu borom ba mu diglee jaamu itam yaakaar naa am na yeneen yoo xamante ne ni mhm. bëgg nañu boole ko ci jaamu gi daal ndax mooy tax jëf ji mën a nekk jëf joo xamante ne mooy tax suñu borom nangu ko dégg dëgg nangu loolu tam yaakaar naa mat nay bàyyi xel bu baax a baax a baax mat nay bàyyi xel bu baax a baax wàllu sellal gi ndax tam eh, suñu borom maanaam ko am fulla la mm. ci ni ko mën a ñu baal ma mm. te doomu adama sax du jël du jël du jël yefam mm. di ko di ko def fa tak te ji boo denc lu nga gëna fonk sa yére yére boko ko denc ci sa batan wala sa armoire da ko fëgg ba mu set defar ko ba mu sel nga duggal ko fa rawatina nak nga fasiyene yéene suñu borom loola moy suñu tuba suñu tuba mom euh mbirum lepp dafa sel bañ na ko ba lim don sel, sel, sel, sel musta mësta jullil waxtu hmm. timal ko dedet hmm. dan japp rek Juli julli hmm. kon koko ko bëggoon lu sel la kon euh, na ngeen selal su seeni jëf selal seen yene selal xol bi ba mu sell sellal col gi dora dora dora dora nak a door jublu nag ci fas dakarlok serigne bi dakarlok sunu borom tayit muy Eh, eh, eh, lu lu mat lu mat a bàyyi xel la. ñu bëree bëri nag mën naa am saamaas gi dañ koy xaw a fàttale léegi muy sellal gi. te sellal gi lu ci am am solo la. Mm. waaye sëñ Modou bëgg a jàng xasida mm. bëgg a bëgg bëgg a def leneen. Mm. la day xaw a doy waar. Mm-hmm. te si suñ tubaa daa xaju dara dara dara ak fenn. dëgg la. maanaam xajut ak leen mas naa woo sëñ Rijaal jox ko yaari yaari peeri dàll mm-hmm. ne sëñ Rijaal moo indi mu ne ko jëlal sa yaari peeri dàll yi mu ko boqal wenn bi mm-hmm. sëñ Rijaal boq wenn wi mm-hmm. mu ne ko sànnil wenn wi fee mu sànni fee wenn mu ne ko yóotul wee jël ko te bii sa poqutaan bi ba mu suñu daan ko ah mbàkki loolu de xam naa moom dana xaw a jafe moom yóot jël wee te bii waddul moom dana dana xaw a jafe mu ne ko noonu nii nag laa demee maanaam maanaam kenn du ma bokkaale kenn daal maanaam su borom la mi bañ bañ bokkaale man mii maa ko gën a bañ. loolu nag mooy mooy xasida rek bëgg a jàng xasida hmm. bëgg a bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg xam li xew ci làmb ji. Hmm. bëgg a jàng xasida mokkal xasida xam xam xam xam programme làmb yëpp xam programme mat ci yëpp xam lépp maanaam loolu sëñ bi lu mat a bàyyi xel te loolu ci ak ñàkk si la bokk. Hmm. xasida daal sëñ bi suñ ko bëggee jàng dëgg dëgg bëgg cee bëggal sëriñ bi nañ ko jàpp moom képp. moom képp képp xasida te sellal ko. waaw sellal gi nag mm-hmm. bu uh, yemul yemul nii rek ci wax nii sellal sellal déedéet mm-hmm. da ngay sellal ndax ku wét xam sell nga am selloo mm-hmm. kenn ku ne yaa gën a xam sa sa bopp sa morom kenn du nettali gën ak moromam ne nii képp ku wét ku ne xam nga ndax yow mii li sëñ bi bëgg yaa ngi ci wala néewoo ci man ngaa réyal mbubb sol sa suñ sooy bu mag <laughs> wala wala sa kii bu mag ñu baal ma ci loolu waaye Eh, xam ne yow mii kat kaw gi rek moo sell waaye biir gi moom mm-hmm. tuwaarkal la mm-hmm. kon daal nañu sellal jëf yi bu baax a baax mu nekk lu am solo sellal biir gi nag mooy li nga xamante ne mooy lu ëpp solo ah, ndax biir gi moom bu sellee rek <laughs> eh, lépp day daal di mat mm-hmm. mu nekk loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la ndax léegi léeg nga gis koo xamante ne day du day jàng xasida waaye day yor téléphone am di ko booleeg bu sonee mu gaaw njëkkante allo nangam nangam <laughs> bu paree dootul xam <laughs> te téléphone am nii vocal whatsapp bu ñëw mu liir bu pare loolu xam fu mu tolloon mhm. te loolu jamono yi nga xamante ne moom bàyyi nga njàng mi fa lay nekk ci leneen mhm. sam xel génn na ci njàng mi euh, sellal bi bokk na ci loolu ñu ci ñu ci ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax mhm. ndax euh, sëriñ bi am na ku ko mosoon a laaj ndax di nit mën naa nekk di wirdu ba noppi ay way juróom woo ko mu dagg wirdu wi dem wuyu ji leen ndax loolu mën naa nekk maanaam dagan na waaw sëriñ ba lam ko tontu mooy bu fekkee bu fekkee dafa nekk ci wirdu ñu woo ko mu mu xam fa mu tolloon mu wóor ko ne bu demee ba dellusiwaat dana xam fa mu tolloon hmm. mën a eggaliwaat su boobaa mën naa dem wuyu ji ay wuyu juróom waaye bu fekkee bu ñëwee bu demee bu ñëwee du xam fa mu tolloon nag hmm. day continuer wirdu bi bu noppee wuy ji bu noppee wuy ji gis nga ay wayjur nu mu foore wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana suñ borom ba mu diglee jaamu yàlla bañ ko bokkaale ñaari wayjur la ci la ci la ca kii mm-hmm. la la ca wax digal ñu ñu lu bari ci alxuraan xamal ñu ne doomu aadama dañ koo dënk ay wayjuram ci ak rafetal kon mu lu toll ne sa jur bu la woowee te yow mu fekk ngay dur ngay ngay ngay kii ngay wirdu bu dee boo demee da ngay jax rek mu ne na nga wirdu ba noppi soog a dem wuyu loolu day wane loolu nekk na loo xamante ne ku ko ku ci nekk rek war nga koo teewlu bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. te jàng xasida wérdu la ndax tudd tudd yàlla la zikar la mm-hmm. kitaabati zikrun wa sukrun wa shadaat allahu arsada xilaami wal midaat mm-hmm. kon yar na nu suñu borom dool di tawfiix bu baax baax ñu fàttaliwaat mbokk yi bu mu jokkoo bi 88 628 19 25 mooy bu mu jokkoo bi 88 628 19 25 mooy bu mu jokkoo bi laaj bu njëkk bi mooy salli wa salli man na yaa karimu waxut ilayya kulla ma arumu ñaareelu laaj mooy lii jut bi kaw ni makaatibi hudan abadan xajjan wa xazwan wa mahral fuuru wal xiidu mm-hmm. laka kalkali laka jussati laka niyati laka xurbati wa mawaatini wal munzilu mooy sama laaj bu njëkk mm-hmm. soxna jaara wa man talaaha muxlisan li wajhi man anzalaha faaza bi ajrin wa amal. Mhm. laaj ñaari. Cheikh Mourtada Faara Faye moo jaayanti Tuhfatu ak Sindiri incha allah. incha allah 88 628 19 25 mooy bu mu jokkoo bi ñu àndaat ak Serigne Mountakha Gueye ba ci kanam. biha abadan wanfa biha kulla man ahabbaha wa kulla man i'tana biha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 من قاد لي خدمته والصورا ثم الصلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي والجنة عن الأعادي والأذى والجنة وآله وصحبه الأبرار الاستمرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عن النبي بها كما تبر نويت من العام خدمة تصر مشفعا به كفيت ما عصر جوجف سرين منتخى جيكي نجان مام سولو ديكو زياره وات بو باخ سي خسيده بو ماغ بوبو خامني خسيده جالبه المراغب mu mel ni gis nga foofu sëñ bi mi ngi fi xamle jubluwaayam ci xasida gi xaaza wa xasdi xidmatan taqarru aynu nabi biha kama tabarru mu ne jubluwaayam daal mooy bégal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seeral xolam te xidmatan taqarru aynu nabi biha kama tabarru nawaytu min zalaami xidmatan tasur musafaan bihi ku fiitu maa asur mu ne maa ngi yéene daal ci at mi liggéey boo xam ne dana bégal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ci darajaam la ko yàlla suñ borom fegale mbooleem lu jafe woon comme nu mu doon wax ne yasara lii mu yasirul ansiri suñ borom yombalal na ma yasara lii mu yasirul ansiri maxtaarahu liya bila mashiri noonu la noonu la ko ñaanalee taalibe yi itam na ne ko yasir lahum bihi lazi taasara fa kullu ma yasartahu te yasara na nga leen yombalal lépp lu jafe woon kon day mel ni sëriñ bi moom Euh, faggul nañu lépp daal bàyyil ñu ko ci ci ci xasaayidam yu tedd yi mhm. nga xam te ne ñun moom lu ñu ci war rek mooy di ci góorgóorlu bu baax di di ko di ko jàng mhm. te di ci sàkku ngërëmam mhm. waaw suñ tubaa day moom noo faggul loo xam ne moom xamuñu ko noonu ndax fi mu toll nii e, e, yassir lahum bihi la si tansara kullu ma yasartuhu te yassara fi ne boo dee ba ca cat la nga dégg mu ne mun na ala qaari isil xuruufi bi maa yëfaxu zanna min maarufi na nga na nga na nga na nga ki jàng xaraf yi daal na nga ko may lu lu lu kawe njortam lu kawe njortam daal na ko am ci barkeb lan xasida yi kon xasaayit sëñ bi dafa bari lu ma mën a def ci doomu aadama am na fi mu feneen fu waxoon ne man daal damaa yéene taalif taalif yoo xam ne day yee gaa yi nga xam ne eh, eh, dañ ma yeewooguñ maanaam man dama ko tudde kiis suñ tubaa kiis la <laughs> maanaam xasida yi kiis la nga xamne ne bokay jang waxuma la waxuma la yol bi ngi ci am waye dalay yee yow sa di dalay ubbi mm-hmm. lolou mom jankati xassida yu bari bari xam nañ ci dara mm-hmm. léeg nga gis jankat bo xam ne ji boko joxone micro man na tok fee conférence ndax lan yew gum yew ci ci mbirum serigne bi mm-hmm. motax mu ne nawaytu yu balid li wa ci jinani wal khulud kon suñ tubaa eh, kii maanaam dafa dafa yéeme. Hmm. fi ne xasida yi lépp rek nañ kii sa ngi ci. Hmm. fi ne gone gone goo xam ne gii sax dafa dëgër bopp. Hmm. Eh, jox ko rek toog fa tuuti mu na. jàngal ko ko rek tifli ci ndox jox ko mu naan. day mujj yàgg xarum yar moo koy raw. ndax lan tàggat gu ko gu ko xasida yi tàggat. xasida day tàggat maanaam day tàggat doomu aadama. waj alkitaabatiya rabbi rabbi kulla mutaaliyan waaw kon. fim mu toll nii yu mel noonu dogu ci dang dang koy gis ci bir xasida yi nga xamne hmm. euh seigne touba da jël lepp dal manan li nit ki don don wuti hmm. da ngay gis mag ñu njëkk hmm. da ngay gis ko xamne day day day wut xam-xam ñu ne ah dekk sangam kat ko xam len am na fa mu dem ci koga tok fa yu ko boko ko jangal ko lola mu bayyi ko fa dégg yenen tudd kenen lenen ko xamne lola rek la man mu dem fa jangal seigne touba nak da jël loola lépp dëxañ ko ci xasida yi lola lepp lo way di wuti rek suñ tubaab da koo dëxañ ci biir xasida yi hmm. xanaa kay nga àgg fa ak nga nga bañ faa àgg waaye lépp mu ngi ci biir xasida yi te boo góorgóorloo di ko jàng euh, yàlla mën naa dogal lool lool loolu lépp day ñëw ndax hmm. ijal tawalifi lati uridu taalifaha fawzan liman yuridu hmm. waaw képp ku képp képp ko sopp rek képp ku am xemmemtee fa dem ci suñu borom rek mm-hmm. euh, euh, na na nga ko def na ko jox li mu bëgg rek ci barke lan sama xasida yi mm-hmm. xasida daal lépp moom mi ngi ci biir mu amul amul kii macha allah noonu nga ko waxee mu nekk loo xamante ne nii mm-hmm. yaakaar naa képp kuy dund xasida rek da nga ci xam dara ndax comme noonu nga ko waxee léeg-léeg da ngay gis koo xam ne <laughs> day yëngu ci xasida yi mën naa nekk jàngkat wala mu nekk ab duruskat waaye bu ñu ko joxee micro wala mu toog ak gars yi di waxtaan. dañuy jàpp ni kii dafa jeexal téere yi. te fekk mbindum Sëñ Tuubaa moo mel noonu ndax am na fi Sëñ Tuubaa defe naa bind bi ñu jëloon tey rek ci bayit di jour. Mm-hmm. waksif bi xatti ah. maxtafa minal ulum mu ngoog yow yàlla na nga feeñal ci sama mbind. Mm-hmm. lu nëbbu woon ci ay xeeti xam-xam. Mm-hmm. nga xamante ne loolu. ki koy jàng xam-xam xasida yi daf koy xamal xam-xam yoo xam ne ah. yu làqatu la woon te nëbbu woon te am njëriñ lool am na fu mu waxee tam xabliya kaw na xalami muallima mm-hmm. nga may na nga ma may sama sama mbind mu nekk loo xamante ne maanaam day xamle xasida nag ku mu xamal Sëñ Tuubaa moo la xamal ah. te ku Sëñ Tuubaa xamal doo bokk ku mu xamalul <laughs> am na feneen foo xam ne itam yuqarribu taalifil ulum allati naat ila nnaasi musanum fa addi bi fa samay taalif samay xasida dañuy jegeel nit ñi mboole mboolem xam-xam yu sori woon kon maam jaar loolu rek maanaam jar na jàng xasida da lay xamal mm-hmm. li sori woon di la xamal xam di la jegal xam-xam yu sori woon di la xamal xam-xam yu làqu woon loolu rek jar na tax maanaam ñu mën a ñu war a jàng xasida mm-hmm. Mm-hmm. kon ci niñ ko dégge dafa mel ne xasida mm-hmm. mooy li gën a mën a maye ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala ak àgg ci moom ak xol bu set ci niñ ko déggee ci ni ngeen ko waxee ak fajum aajo ak mbég mu sax dàkk. lay ndeysaan àdduna ak àllaaxira hmm. ak jiitu sag maas tamit zaahiran ak baatin. Hmm. ak xam lu bari loo xam ne tamit nëbb na nit kese ñi. Hmm. rawatina lu ci mel ne gis yenant bi sallallahu alayhi wa ak sëriñ Tuubaa mi nga xam ne yaakaaruñ ko dul moom. loolu lépp mu ngi ci biir xasida yi ak yu bari si mbiri baatin yoo xam ne si xëy na jaamu yàlla dina ko maye. waaye fa nga cay àgg ba tax nga am ko doo ca mën a àgg. ndax dina laaj ab diir bu yàgg mm. ak xalaat mm. ak jaamu yàlla guddi ak bëccëg mm. te lépp nag jëmmi suñu borom rek tax te xaside yi moom jërul sax ngay wéet ak di xalaat ndax sëriñ tubaab moo wax ni tuwassilu aqlaami ilallaahi abidan bilaa xalwatin wallaahu abra kama arna samay xasida day àggale jëmmi suñu boroom si lu jërul muy dugg xaloo ak di wéet mm-hmm. ak di sonn mm-hmm. ak di xalaat mm-hmm. mu ni samay xasida kawe na sëriñub tarxiya ak bu tarbiya ak yëpp yiw nga di ci dégge ni sëriñub tarbiya dalay digal ak di la tere waaye xasida yi duñ la digal duñ la tere waaye dangay jàng sellal defe ko ni ko sëriñ bi bëgge njariñal kese fek la ci wallahi ndaysan ci kaw nak nga defé ko ni nga xamni non la ko serigne bi diglee woon mm-hmm. mu nek uh, lu am solo lol noonu nga ko jangate mm-hmm. gaaw lol ci joxe ngeeramul yalla sun borom nga xamantene serigne touba wax nako ay barab yu bëree bëri wali ta ma katabtu akbara ridan dan la day ka xat sorul gis nga mu ne defal na lu mbind muy ngeeramam lu gëna mag nak itam kawe na serigne bi tarxiya ak serigne bi tarbiya mm-hmm. waye kawe jëpp jëf ju baax bépp yiw euh, mu nekk loo xamante ne ni day wone njëriñ yu màgg yi nga xamante ne suñ borom subhaanahu wa taala defal na ko Sëriñ Tuubaa ci xasida yi mm-hmm. mu dem ba wax ni sax maanaam bëgg gi nii sopp xasida bëgg gi rek mm-hmm. mën naa eggali ci yàlla ci lu dul muy wéet di dogu ay wa comme ni ko maam jaare léegi léegi di dem ci àll di di di di wéet mm-hmm. di xalaat guddeeg bëccëg subaa ngoon <laughs> fanaa jaamu yàlla loolu lépp سنت بعدين بق خسيد رك منا إجل نيت كتير الله سنبرم يوصلوا خاتي من أحب للإله بغير خلوة ويكفي كل لا جسنا من يكلوا هم تنيني لو أم سولو لور لسنا عبد سكور باي أنا بكو دفع كون مفات لي أت بوكي بوم جو كوبي 88 628 19 25 88 628 19 25 مو بوم جو كوبي دزيا بباخ باخ بولم نينغا خامنه ñooy teewlu rajo bi ci fréquence bi di 105.5 mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñoo koy teewlu ci application bu Touba Fall rajo nga xam te ne mu ngi ci Google Play bi mu ngi tudd Touba Fall rajo ku ko téléchargé mm-hmm. da nga mën a déglu rajo Touba Fall FM fépp fa mën a nekk ci monde bi mm-hmm. ñu ciy jaajëfal lu baax sunu directeur général Serigne Alioune Ndiaye moom itam day déglu jotaay bi fële ca Ndakaaru Mm-hmm. xam naa moom boo demee ci application bi la koy tegloo moom itam di ko jaajëfal bu baax ku ci mel ni Serigne Zakaria Fall sunu directeur programme moom itam ñu ngi koy ziar bu baax fële ci diwaan bu Touba Jannatu Mahwa waaye Serigne Mbacke Kébé al oustaz moom itam mm-hmm. di suñu xarit ñu ngi koy ziar bu baax a baax te di ko jox wàcci waayam mm-hmm. al oustaz abou sa imam yalli moom itam mi ngi fii ci kër gi euh, ku ci mel ni DJ événement moom itam nay rafet borom rafetal ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko ziyaara eh. suñu xarit la fële ca diwaan ba Touba jannatul mahwa mm-hmm. eh, ak képp koo xamante nii rek yaa ngi yëngoo fii ci rajo Touba Fall FM 105.5 mm-hmm. waaye di ziar bu baax tamit mbokk yi nga xam ne ñoo koy déglu ci mm-hmm. groupe whatsapp bu daayira si faw sudur mel na ni jamono ji ñu ngi koy ànd ak ñun foofu jotaay bi en direct ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax la ko tàmbalee ci te njëkk a ci jotaay bi <laughs> comme ni ko mbokk yi waxee ah, comme mu mel ni Sëriñ Yaxuba Bàjji nekk fële ci diwaanu Jurbel hmm. mi ngi ñu xamal ne mi ngi teewlu jotaay bi Sëriñ Alaaji Dem moom itam mi ngi ñu xamal ne mi ngi teewlu jotaay bi jëwriñ si Fass Ndour bu Jurbel hmm. Sëriñ làmp euh, Touré moom itam mu ngi teewlu rajo bi hmm. fële ci diwaan bu Touba Sam waaye ku ci mel ni sëñ Diop sëñ Majaw Diop moom itam mm, suñu xarit la nee na mi ngi teewlu jotaay bi fële ci diwaanu Ndakaaru Serigne Mortala Gueye mu ngi koy teewlu ba fële ca diwaanu euh, Tamba. naka noonu Serigne Mohamed Sarr bu mu ngi fii ci diwaanu Touba. Serigne Mohamed euh, Gueye moom itam mu ngi koy teewlu fële ca diwaanu Njaareem. ak mboolem ñi nga xamante ne ñooy teewlu ñëpp Serigne Ahmadou Diakh fële ca diwaanu Ndakaaru soxna Fatou Touba. ñoom ñëpp daal ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax soxna Mariama Diallo moom itam ñu ngi leen teewloo ci diwaanu Ndar Sëriñ Abdou Sakor ñoom ñëpp saa bu bi tàmbalee mhm. dañuy dagg seen yitte yëpp ndeysaan di teewlu ahlu xasida ndeysaan mm, ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare ñoo ñëpp nga lim ak ñu nga limut ak ñëpp rek mhm. ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare mhm. eh, di teg nuyoo bi sa loxo rek nga jàllale ko comme noonu ñu nga ko defee léegi Euh, di leen xamal na it saa su nekk suñu xool ak suñu xalaat ak lépp rek ñu ngi koy ànd ak ñoom. Mm-hmm. liggéey bi suñ jubaa bi. Euh, di nuyu bu baax a baax a baax ni nga ko waxee léegi borom kër gi ak mbooleem ñoo xam ñi nga xam ne bile rek ñu ngi nekk ci biir kër gi ñëpp. Mm-hmm. waaye Serigne Aliou moom i xam ne suñu directeur ñoo ngi koy nuyu moom itam di ko beral nuyoo ko siyaar bu baax a baax a baax a baax. sëñ Mbàkke baax waaye bëgg cere mm-hmm. ñu ngi koy nuyu baax waaye xam Mouhamadou Lamine Lam day mel ni sëñ Modou Mbakk nga ci ligne bi